ko ci réew mi Sénégal tamit daan nay wane waat boppam bu baax a baax fas yéenee dem nag ci coupe du monde ba ngir wane fa boppam Aliou Cissé mi nga xam ne mooy entraîneur bu équipe nationale bu Sénégal nee na Sénégal dafay nag dem Qatar waaye ne yu dëgër na Sénégal ci gën naa wane boppam te Aliou Cissé nee na Sénégal bu demee Qatar ñëpp dinañu xam ne dëgg la nee na Sénégal Qatar Sénégal dana fa wane boppam bu baax a baax ci coupe du bi yéen kaay gi de la témoin daal di fësal daal di xëy moom wax ne ahlan bikum fi Qatar journal bi ñu xëy fekk fa Matar Ba mi nga xam ne mooy ministre bi ñu dénk wàllum tàggat yaram ci réew mi nee na nag jamono ji Sénégal dina def ay jaloore joo xam ne ñëpp danañ ci teg bët ni yéen kaay gi di enquête moom dafa xëy fësal ci xëtam mu njëkk ne Qatar ñoo ngi nii yéen kaay gi di réew mi quotidien daal di wax ne match bi nga xam ne démb moo doon dox diggante Sénégal ak Égypte match la boo xam ne nag jafe woon na lool la boo xam ne metti woon na ci ay tiro bi ca la mujjee Sénégal nag daal di mujjee gagné yéen kaay gi Mohamed Salah ni ki démb nag dañu koo daal di gëlëmal ak li nga xam ne mooy ay laser ak góolu bi ne na laser yi koy démb maanaam mel na ni tulleeg màlle ci stade maître Abdoulaye Wade maanaam supporters yi muy ñu dara Égypte nag li nga xam ne moom la lebaloon senegal daan nañ ñu ko koy fay ba daal di koy wisa yéen kay gi di bés bi nee na en tout cas li ambade sal stade bi moom démb laser yi bëri woon na loola yéen kay gi di stade xëy duñu xibaar naa ñu nag Sénégal ginnaaw bi mu jëlee li nga xam ne mooy Coupe d'Afrique bi daal nay qualifié mondial lii nag dafa daal di gën a neex yéen kaay gi di Stades nee na Edouard Mendy maanaam match bu rëy la def Edouard Mendy wanete na boppam wane na ne jamono ji nag mooy góol bi dàq góolu ci àdduna bi journal bi nee na Sabaly moom dim ni ki démb def na match bu rëy waaye nag kenn du Sadio Mané journal bi nee na li nga xam ne mooy match bu démb bi comme finalu Coupe d'Afrique bi Sadio Mané dafa daal di dugal Edouard Mendy arrêté ab bal ki nga xam ne mooy Bamba Dieng moom penalty bu doy waar la dugal yéen kaay gi de la Soleil xëy duñu xibaar naa ñu nag bu ñu waxantee dëgg sunu gaynde yi dañoo ñi nga xam ne ñooy pharaon yi yéen kaay gi di Aliou Cissé nee na ni ki démb ay gaynde ay gëree dëggantaan ñoo nekkoon nag ci biir terrain bi ki nga xam ne mooy Carlos Queiroz entraîneur bu Égypte nee na nag bu ñu waxantee dëgg ñetti match yi Sénégal football ak Égypte yëpp maanaam Sénégal moo man Égypte waaye nag Sénégal na dem nag représenté ji Égypte ci coupe du monde bi nga xam ne mooy xewee sa Qatar yéen kaay gi de Libération nee na Edouard Mendy assure Sadio Mané rassure yéen kaay gi de Les Échos Sadio Mané daal na yóbbu équipe nationale bu Sénégal fi nga xam ne mooy Qatar nee ma sa mondial ba yéen kaay gi di Walfadjri Kalidou Kalidou Koulibaly nee na nag Sénégal dina def nag parcours bu mucc ayib ci coupe du monde bi nga xam ne moom la ñu dëgmala yéenekaay gi di estat nee na Sadio Mané dem na Qatar Mohamed Salah moom toog na këram Sadio Mané au Qatar Salah à la maison yéenekaay gi di Rewmi Quotidien xëy nag di ñu limal dëkk yi nga xam ne ñoo daal di qualifié ci Qatar 2022 journal bi nee na Maroc qualifié na Tunisie qualifié na Ghana qualifié na Cameroun qualifié na Sénégal qualifié na équipe yi ñooy dem ci Qatar 2022 yéenekaay gi di Les Échos nee na ni ki démb nag supporters yi feesoon nañu dell dell dell ci stade maître Abdoulaye Wade waaye nag supporters yi ni ki démb tegal nañ nag Égypte lu diis gànna maanaam lu métte métte la ñu tegal ni ki démb nag ñi nga xam ne ñooy waa Égypte yéen a kaay gi njiitu réew mi di président Macky Sall nee na démb dafa stressé woon laal moom Macky buuru Fatick ak Fouta nee na nag stress bi nga xam ne moo ko jàppoon loole moo taxoon munta dem fi nga xam ne mooy ca stade ba seetaani mat sa ba yéen a kaay gii di l'info nee na Ousmane Sonko daan kontaan lool ci ba Sénégal ba pare nag wax leen woy leen di ñu bégloo Abdoul Mbaye moom tim kontaan na ci équipe nationale bu Sénégal Thierno Alassane Sall moom tim daan wane boppam bu baax a baax Déthié Fall moom tim daan nay kontaan loola ci équipe nationale bu Sénégal ba si sax Macky Sall yéen kay gi du l'Observateur xëy nag wax ci lu jëm ci wàllum politique nee na nag Idrissa Seck jamono ji ginnaaw défaite bi nga xam ne am na ko ci élection locale yi Idrissa Seck dafa bëggaat jëlaat nag parti bii di réew mi daal di koy koy doxal waaye nag Moussa Diaw mi nga xam ne dafay